avion buy ëgg si Sénégal bu am place ñu rugg leen dugal leen ci avion boobu xam naa bu ñu àndoon tey ma wan la autant des sénégalais yoo xamante ni bi ci noonu la ñu ñibbisee te am nañu fa ay ambassadeurs yi fa nekk mos naa ci am ak benn conseil consul Sénégal jidda coow ma nag moom coow coow coow ba ñu dàq ko ba bi mu ñëwee fii toog na ay yoo xam ne tudd parce que nee na maa ko dàqul mënu ko ndokk parce que yi nekk bitim réew mais autorités yi dañ ci war a bàyyi xel dañ ci war bàyyi xel mais tey li am Tunisie tey ambassadrice bi nekk Tunisie dafa échappé presse bi mais dañ ko war continuer di dénoncer ci anam gi ñu taxawoo sénégalais yi nekk foofu Tunisie loolu mooy li tax ñoom Baye Fall jël ay risques dugg ci gaal yi Baye Fall moo nekkoon cëslaayal sénégalais yi nekk foofu Tunisie boo ñëwee xamoo fa kenn moom moo lay gàttandu moo lay may café Touba moo lay accueillir moo lay yóbbu këram parce que dafa nekkoon ak jabaram ak ñaari doomam dem ba amatul benn espoir dugg gaal gaal gi suux mu deem ak jabaram ak ñaari doomam. lan moo ci nekk taxawaayu euh, autorité diplomatique yu Sénégal yi nekk foofu noonu cest à seen politique dafa des te loolu la ñu war a taxaw di ko dénoncer. waaw ah, je pense que loolu daal boo ko seetloo Thiam loolu moo xew fële Soudan euh, réew yi gis nañu. maanaam booloo bi nga xamante ñu ngi koy def pour rapatrier xamante ne ñu ngi foofu noonu récemment on l'a avec euh, Égypte bi nga xamante ne dem na euh, affaire benn vol spécial yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk pour yóbbule ak situation bi nga xamante moom moo xew Soudan mais au Sénégal malheureusement euh, si nga xam suñu autorités yi defuñu leen lu dul wax ni samp nañu cellule de crise donc jusqu'à présent gisaguñu benn acte concret boo xamante ne def nañ ko alors que nañ ko wax presque ça va faire bi xamante ne